ramadaanangi weru uh-huh. yërmande uh-huh. ramadaanangi weru njëggale ramadaanangi weru yërmande ramadaanangi weru njëggale nafsan fadaratu fiha wala laa kuntum taktumuna ok papa am na lu ma la bëggoon a laaj uh-huh. fardu hmm. ah. kifaaya ak fardu naxiin lan taqale fardu kifaaya ak fardu naxiin lan moo leen taqale fardul kifaaya boo fardu xëy na boo ko déggee mooy loo xam ne nit moo koy defal boppam mooy farta yàlla fartaa si ñun loo xam ne yow rek yaa ko mën a defal sa bopp muy lu mel ni julleeg yi mel ni comme yi farta yi xam ne ni waajib si nit nit mu def ko loolu mooy fardu mooy farta boo xam ne nit ki moom rek moo ko mën a defal boppam ku moom keneen mënu ko si taxaw dégg nga de bu dee fardu kifaaya nag mooy loo xam ne bu ko ñii defee mu wàcc ñi lu mel ni bu nit faatoo ñi ko war a taxaw bi nga ko taxawoo rek wàcce na ñëpp mais bu ko ñëpp bàyyee sàggane ko mën ko taxawee taxawewuñ ko ñëpp am bàkkaar waaye bu ko ñuy defee rek wàcce na ñëpp waaye nag farwaxee ne day gis nañ si leen gis nañ nag nit mën a ajali màkk nit loolu sariya may na ko te aj màkk farata la waaye sariya may na nit ajali màkk nit gis nañ ci benn addis bu ñu wax ne Yunus sallallahu alayhi dafa amoon benn jigéen bu ñëw si moom na ko man de sama wajuru sama wajur dafa génn àdduna te daa bàyyi woon boru est-ce que mën na koo fayal yonent bi na ko ndax bu doonoon leneen doo ko fayal mu ne ko ankay ah, mu ne ko woor moo gën a yàlla nga fayal ko ko loolu gis nañ ko ci hadiis waaye nag fardu ayn moom ak fardu kifaaya loo mën a tàqale fardu ayn mooy loo xam ne nit ku nekk yaa ko defal sa bopp fardu kifaaya mooy loo xam ne bu ko ñuy defee rek wàcc na ñi loolu ñaar ñaari moo leen tàqale. waaw kon jërëjëf allah noonu la. gone day laaj boo xamul ndax laaj mooy tax a xam lu mooy mooy li ma leen wax da leen laaj lu ngeen xamul. ndax nit du dëkk koo xam ne bu ko laajee mu wax ko mu bañ ko wax ndax wax nañu sëñ mag benn téere mu ne képp ku am xam-xam di ci nay balaa ngaa dee balaa bu rëy ma natt bu rëy dana dana dal sa kaw am xam mën a wax te waxoo mbaa ñu laaj da nga mën leeral leeraloo xamal ne yow képp ko sànku te nga mën koo gindi gindiwoo ko yow ëllëg bala ngaa faatu da nga am balaa bu rëy rëy rëy kon nag képp ku ñu laaj nga mën a wax da ngay wax ku xam tamit leeral koo xamul tamit di laaj loolu am na solo trop. Mm-hmm. ndax laaj du ramadaana ngi mm-hmm. weeru yërmande ramadaana ngi weeru njëggale ramadaana